alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala ali wa ala alihi wa saxbihi sawi ridwani wa tamkin amma baadu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen baloo aq te di leen baal aq di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu taw nu te taw leen di ko ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dëgëral sunu kilifa gu mag gi fi nekk bàyyi ko fi lu yàgg lool te may ko kattan ak tawféex ba mu àggale yéene yi nga xam ne moom la yéene ci yoon wi ak yéene ko ci diine ji te nu ànd ko ak moom di ndokkeel mbokki jullit yépp nag ci xew-xew bi nga xam ne moo jàll muy fàttaliku gi ñu doon fàttaliku sunu maam soxna su tedd soosu di soxna jaaratullah di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mboolem alquran ji ñu jàng te jëmale ko ci moom ak tudd yàlla yiñ ñu jëmale ci moom ak xasida yiñ ñu jëmale ci moom yépp sunu borom tabaraka wa nangu ko te jottale ko ci yool bi nu nit ñaan yiñ ci ñaanoon yépp ngir ñaan ci darajaam ak ci barkeem sunu borom defal nu lanu yéene woon ci ñaan yooyu yépp sunu borom defal nu ko defal ko xam nañu nag fàttaliku nit ku baax yàgg na ci àdduna sunu borom tabaraka wa ci boppam moo ko njëkke moom mi bind nit ñi jaaral leen ay jaar-jaar moo njëkk a nettali ñi fekke wutoon doxinu ñañ fekke ak seen jamono ña baax nettali na seenu baax ña ca meloon neneen nit <clears throat> men si na seenu melo loolu nag lam ci jublu du rek nettali ngir ñu xam waaye lam ci jublu mooy nettali ko ngir ñu mën caa jëlee lu ñu mën a jariñoo ci sunu diine mën koo jariñoo ci sunu àdduna kon nag bu ñu demee ci xew-xew bu mel noonu ba ñëw ak sax balañ caa dem war nañoo teewlu ci sunu xel ne xew-xew bii may bëgg a dem wala bii ma dem ba ñëw lu ko waraloon ak lan laa ci mën a jàngee loo xam ne dana ma mën a jariñ ci fii ak ci fële loolu rek mooy tax fàttaliku gi am njariñ loolu rek mooy tax fàttaliku gi mën a nekk lu yanu maanaa xam nañ ne sunu borom tabaraka wa taala moo bind doomu adama yi te ku jàng taarix gis ne am na ay jëmm yoo xam ne sunu borom tabaraka wa def na ñu bàyyi ci seenu seen gannaaw ay jeexit yu rëy ay basamaat ay empreinte yoo xam ne bàyyi nañ ko fi mu nekk ci kaw suuf ñu di ko gis yooyu yëpp jeexit yooyu di jeexital ci nit ñi ak ci mbooloo yi yi ñëw seen gannaaw yëpp loolu di jeexital ci ñoom loolu waral ñu am ak yéemu ci ñoom lool am ak rom ormal ci ñoom lool jàppee leen ay modèle yoo xam ne dañ leen a war a roy dañoo war a niitu ci seen leer ga yoon wi nga xam ne moom la ñuy aw ngir mu mën leen koo leeralal loolu am na ñu ko yàlla defal ñooñu ko yàlla defal nag yàlla day bàyyi seenu tur ci kaw àdduna ñëpp di ko fàttaliku kenn du ko fàtte seeni jëfit dafay des nit ñi di leen tudd waaye nit ñi di leen waxtaanee kenn du leen fàtte ñu dem ak seeni ruux dem ak seeni jëmm waaye seeni jëf des fi seeni jeexit des fi am na nit ñu liggéeyal yàlla loo xam ne yàlla may na leen loolu euh, defal na leen loolu buñ gisee taarix nag danañ fekk ne bindal nañu ay jëmm yu bari yoo xam ne yu màgg lañ di ay góor ak i jigéen yoo xam ne am nañ luñ mën a royee ci ñoom te dem nañ bu yàgg jëmm yooyee nag bari nañ lool ci ay góor ak i jigéen waaye jamono yi ñu toll bokk na ci ñi ci gën a am solo seeni jeexit gën fee des seen dara ja gën a màgg mooy sunu maam ju baax ji soxna jaaratullahi radiallahu taala anha xam ne moom lañ doon fàttaliku ci fan yi di fan yi wala bis bi weesu moom soxna jaara nag buñ koy fàttaliku dañuy fàttaliku aw meloom dañuy fàttaliku ay jikkoom ngir mën caa roy lu nu mën a jariñoo ci sunu àdduna ak sunu diine jikkoom yooyu ak meloom yooyu moo tax mu am daraja bu rëy bi nga xam ne am na ko ci xol yi bindeef yépp ñëpp jublu ko ñëpp sopp ko ñëpp di ko euh, ñaanal waaye daraja yooyu kat li muy bari bari ak li muy wuute wuute yépp boo demee ci minanul baaxil xadim bu cheikh mahamadul bachir dajale na ko ci ay ibaaraat yu ndaw ay wax yu ndaw ay jumal jumal yu ndaw yoo xam ne mboolem dundu soxna si dajale na ko ci ibaaraat yooyu dajale na ko ci jumla yooyu nga xam ne moom la moom la bind boo demee da nga fekk muy wax ne wa kaanatil walidatu jaaratullah afifatan saalihatan afifatan dayina kacirat alsalati walsawmi walsadaqati mustaslimatan li rabbiha qaimatan biwaajibatiha baynaha wa bayna rabbiha wa fi ma baynaha wa bayna qariniha alimam wa kanat turabbi awlaadaha ala almuruati waddin waddini waltahaara wa kaciran ma taxki alayhim xikayat alsaalihin loolu wax ju gàtt la waaye wax ju làmboo ay maanaa yu bari la wax ju làmboo ay jikko yu bari la yoo xam ne yooyu rek moo tënk dunduk soxna si ak conférence yeeg wax yeeg téere yi ci bind ak lépp yooyu wax ni mu gàttee noonu dajale na dundam bépp ci biir ci biir wax jooju wax jooju nag buñ ko tasee dañuy gis ne rek ba ca gën a am solo mooy xamoon na warugaram lu tax yàlla indi ko ci àdduna bi xamoon na ko di ko taxawee nam gën a rafetee ci taxaw taxaw ba ci njëkk ci warugar yooyee mooy jaamu yàlla jaamu yàlla xamoon na ne moom jaamu yàlla la yàllaa ko bind te bind ko lu dul ngir mu jaamu ko wama xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun moo tax ci biir wax jooju nga gis mu ne kaanat dayyina kathirata salaati wa sakaati wa sawmi wa sadaqati kathirata salaati wa sawmi wa sadaqa kon daana jaamu yàlla jaamu yàlla gu kawe daamut yam ci farata yi waaye naafile ya sax da ko ci boole sarax yi da ko ci daan boole jëpp jëf ju baax yoo xam ne ay ndigal suñu borom la lépp lu mu ca mën doon na ko def waaye lépp lu suñu borom tere daawu ko jege daawu ko laal kon xamoon na lu ko indi ci kaw suuf doon na ko taxawee itam gën jaar rafeti taxawiin loolu nag buñ ko xamee dañ cey jëlee loo xam ne ci kanam incha allah tabaraka danañ ko wax ba ca tegu mooy wari garam yi ko indi ci àdduna bokk na ca mooy ka ko yàlla boole loon muy jigéen yàlla boole ko kilifa gu mag koo xam ne ku ku ku ku am solo la ku amoon maanaa la ci ci ci jamonoom yàlla boole ko moom waaye muy dox diggante lawar ci moom mu di ko def ba mat sëkk qaimatan bi waajibaatiha baynaha wa bayna rabbiha wa fi ma baynaha wa bayna qariniha al imam imam jooju ko yàlla boole loon doon na taxaw àq ja ko war seen diggante di ko taxawee tax taxawin ba gën a rafet te ñaar yooyu muy jaamu yàlla ak topp ki yàlla booleel dañoo lëkkaloo benn munu cee dem bàyyi moroomam bu jaamoo yàlla te toppul ki ko yàlla booleel yàlla du nangu jaamu yàlla ga waaye boo doon topp ki ki la yàlla booleel te doo jaamu yàlla it yàlla amul solo ci loolu tax cheikhul xadim wax ci xasida yi ne wala taruumi taata allahi bila taati zawjika taqiyi dul ula bul bëgg bul bëgg a bul sàkk mukk jaamu yàlla defe ne yàlla dana la ko nangul ci lu dul topp sa borom kër bi nga xam ne bu ragal yàlla la fa xaytuma zawjun radiya an zawjati radiya anha rabbuha bi millati saa bu borom kër bi gërëmee rek borom kër boo xam ne ngërëmam am na solo saa bu gërëm loole day nekk ngërëm loo xam ne sunu borom da cay gërëm ngërëmam loolu danañ ci so borom kër boobee nag am na nu muy mel waaw zawju ko taqi yi dañuy wax ne cheikhul xadim radiallahu taala anhu am na benn waay bu mosoon a ñëw ci moom di ko di ko di di maanaam mel ni daal ko ko tànqal ci gërëm naa sama soxna si gërëm naa sama soxna si gërëm naa sama soxna si di ko wax ay yoon yoon mel ni ko ko tànqal ne sëñ bi ne ko yow ku gërëm ba sa gërëm am njariñ yow yow mi yow ku la gërëm sa gërëm am njariñ lu mat a settantal la lu mat a teqantal la kon nekkoon na koo xam ne la ko waroon digganteem ak ko ko yàlla booleeloon doon na ko taxawee bu baax a baax a baax ba ca tegu mooy sàmmoon na boppam ali ay fa fii fatan dayi na nekkoon ko sàmm boppam te mooy sàmm ay cëram yépp ba lenn lu araam wala lu ñu sib da koy wattandiku mooy sàmm sàmm sa bopp te sàmm dafa nekk lu jikko ju am solo joo xam ne sunu borom tagg na ci ay nit ba tàyyi digle na ko ba tàyyi ñaaxee na ci ba tàyyi wala yastaafifi alladina laa yajiduuna nikaaxan xatta yuxnihum llahu min fadlihi kon ñi nga xam ne dañoo war a sëy te amuñu luñ sëyee amuñu luñ luñ luñ luñ luñ luñ luñ luñ luñ takkee di ay góor wala ñu ay jigéen sax waaye mënuñoo sëy neena nee na ñooñu nañ muñ te fegu te aar seen bopp ba yàlla jox leen lañu la nga xam ne moom la ñu war a war def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu waxaat ko ci beneen hadiis ne salaasatun xaqun ala allahi awnuhum nee ñett ñett a ngi nii ñoo xam ne yàlla warlu na ne dana leen dimbale dana leen dimbale dana leen jàppale ku njëkk mooy kuy jihaad ci yoonu yàlla jihaad nag façon yu bari la waaye bépp façon boo ciy def rek tane ca yàlla dana la ci jàppale yàlla dana la ci dimbale ka ci mooy koo xam ne da nga da nga da nekkoon ku ñu moom ci jamono yi ñuy moomee nga bëgg a jot sa bopp la ngay wut ngir jot sa bopp ku la ca dimbale loola yàlla nee na dana ko dimbale moom kookee yàlla dana ko dimbale ba mën a jot boppam ak ki nga xam ne nag ab naakix la ku bëgg a denc te la tax mu bëgg a denc du dara lu may bëgg a fegu bëgg aar boppam ci lépp lu araam loolu rek tax mu bëgg denc ku def loolu ñett yooyu ku ci nekk rek soo borom warlu la ne dana la dimbale kon fegu ak aar sa bopp nekkoon na lu am solo lool te soxna si yàlla dimbali na ko ci loolu waaye bi ci desit mooy wa kaanat turabbi awlaadaha ala diini wal muru'a daana yar ay doomam ci diine ak kersa daana yar ay doomam ci diine ak ak kersa loolu nag buñ ko xoolee danañ ko fekk ci biir wax ji moom it wa kaanat turabbi awlaadaha ala diini wal muru'a ndax yar doom ak sàmm kër responsabilité jigéen la gën a fa gën a ëppee donte ni ñaar ñëpp la war waaye jigéen nag moo ca ëppale rawatina ci yar doom rawatina yar doom ju jigéen fal maratu raiyatun fi bayti zawjiha wa waladi wa hiya masulatun an raiyatiha yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ne jigéen day responsable la ci biir këram ak ci ak njabootam waaye sunu borom dana ko laaj responsabilité boobu ndax joxe woon na ko ëllëg wala déet bokk na ci lii seere loolu mooy kii mu ñu indil di cheikhul xadim radiyallahu taala anhu ak xar baax bi ci yàlla feeñal ak may yi ci yàlla feeñal lépp téewut fañ doon jaaral leen nit ku baax yar ko yar bu baax sàmm ko sàmm bu baax xamal ko lu baax lépp jaarale nañ ko fa nañ fa doon jaarale ñeneen ñi ci des ak nag bu ca génnee nag may ya ko yàlla may nag moom leneen la waaye fañ doon jaaral leen nit ku baax fépp jaarale nañ ko fa wax nañu soxna si daana àgg ci yar di dajale ak njabootam di leen nettali eh, gaa yu baax yu njëkk ya nan lañ daan def ba am yàlla nan lañ daan jullee nan lañ daan wooree nan lañ daan taxawee guddi nan lañ daan jàngi alxuraan di leen nettali ci ñoom xissa yu am solo leen sëriñ bi booba ràññeegut amagul xelum ràññee maanaam ci saayir amagul xelum ràññee waaye na déggim daan dégg loolu daana jeexital ci moom ba bu guddee day dem ca àll ca ca ca péncum dëkk ba nee na moom képp di taxaw guddi te sax xàmmeegut li muy def xamagut lu muy jàng xamagut lu muy wax waaye dégg na ñu ne gaa yu baax yi day daanañ sopp taxaw guddi bu ko defee muy dem foofa taxaw fa ba bët set wala mu yàgg lool ngir dégg gi mu dégg loolu te bëgg bokk ci ñooñu te boobu xàmmeegut sax kon xam nañu yar njaboot yar leen ci diine yar leen ci jikko lu am solo la te teel koo def gën caa am solo ndax jamono yooyu la ko daan def te jamono yooya sëriñ bi ci boppam xàmmeegul kon gone dañ koy yar ci jamono joo xam ne li nga koy wax mën ngaa jàpp ne xàmmeewu ko waaye day jeexital ci moom saa boo xam ne dem na ba war ko war koo def loolu la woykat bi di wax ne alifa nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakata nujabaaw kaa yu baax yépp lu baax dañ koy miin ci seenu ngone ci seenu ndaw lañuy miin lu baax ba buñ màggee tàmmu ko ba def ko daf leen di yomb kon sëriñ bi moom it jaaroon nuñ ko foofu ñu xam ne nag fàttaliku googu maanaam shaxsiyaat taarix yi maanaam euh, nit ñu nga xam ne histoire da leen fee bàyyi fàttaliku leen du rek di wax seeni may wala di leen kañ wala di leen yéem di jox seeni jikko yu rafet loolu lépp am na solo waaye la ku gën a am solo nag la ci gën a am solo te gën a yaay nag mooy ñu jàpp ne fàttaliku gii kat fursa la ci ñun occasion la ci ñun boo xam ne danañ ca danañ ci nafaraat sunu bopp dellusiwaat ci sunu bopp seet kii ñuy fàttaliku eh, lan la defoon lan la defoon ba am lii mu am bañ ko fàttaliku loolu am solo la saa bu fàttaliku bu mel noonu ñëwee ci soxna sii ak keneen ku dul moom la ngay jëlee ci fàttaliku ba mooy kii kat lan la def ba am lii mu am nan la meloon ba mel nii mu mel ba ba ba eh, eh, di ko defal li ñu koy defal ko defee ñu ko defee ñu jël ko ab royukaay boo xam ne dañuy leeralal sunu yoon diñu jàppandal sunu dox ngir ñu mën a dox dox bu gaaw te dox dox bu leer boo xam ne eh, dana am solo loolu sëriñ Basiru di wax ca eh, eh, ci minanul baaxil xadim ba mu ba mu tuddee ñaari bayit yooyu sëriñ bi wax ne xoqal bukaau ala saadaati namwaati tabki l araadi alayhim kassamaawaati abki alayhim wa arju fi lbukaai gadan ridwaana man fihi gaabu bilxalaawaati ba muy ba muy wax ne am na gaa yoo xam ne yayoo nañ jooy des nee na jooy ay nit ñu baax ñu xam na jooy mooy war na fàttali ko war na nettali seeni jaar-jaar loolu yay na bu ko nit ñi defut it asamaan ak suuf si doon taxaw di jaamu yàlla asamaan ak suuf moom dana leen fàttaliku fa maa bakat alayhim samaa wal ard wa maa kaanu mundarin am na ñoo xam ne suuf si ak asamaan si du leen jooy kon am na ñoo xam ne suuf si ak asamaan si dana leen jooy ñooñu nag gaa yooyu nag mu ne man danaa leen jooy kon danaa leen fàttaliku danaa fàttaliku seen i jaar-jaar waaye yaakaar naa ci fàttaliku googu ak jooy yooyu yaakaar naa ci ngërëmal sunu borom tabaraka wa taala sëriñ Basiru bi mu nettalee ñaari bayit yooyu ne eh, fàttaliku goo xam ne da nga ciy yaakaaree ngërëmal sunu borom mu ne hal yazunnu zannun an kaana yarju bi mujaradi lbukaai ridwan allahi taala wa fi wuscihi an yacmala misla amalihim ndax kenn jàpp na ne mënees saa yaakaar ngërëmal yàlla ci fàttaliku nit ku uh, jàll nga fàtt mu jarada fàttaliku ko rek mu mu mën laa amal ngërëmal yàlla te lam manoon la maanaam uh, nam meloon man nga ko te defoo wala man man nga ca dara te defoo ko maanaam man attan nga lu lu mel ni lañ defoon wala lu ko nuru mën nga ko wala mën ngaa roy ci ñoom mën ngaa roy ci ñoom royee ci ñoom jooy leen rek ak fàttaliku seeni jikko rek loolu rek mën laa yóbbu uh, indil ngërëmal yàlla nee na loolu ku ne xam na ne yéenwut maanaa kon kon lam ci bëgg a jublu rek mooy fàttaliku ga day indi ak roy fàttaliku day indi ak toppandoo ko toppandoo te aggoo fa mu war a àgg it da nga nuru da nga da nga raw say morom ni ko Cheikh Saliou waxee Cheikh Saliou radiyallahu taala anhu daan waxee allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah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 sunu Azul fàttaliku gi loolu rek la ñuy jariñ muy liñ ci mën a roy ñu roy ko te fas yéene at mu jot lañ ca royan daaw ñu dolli ko bu demee ne ñu dolli ko bu yàggee buñ melut ni moom it danañ raw suñu moroom yu bari kon saa buñ demee ba dikk ci màggal gii walla ci fàttaliku gii war dañoo fàttaliku ne kii ñu doon seeti kon jaamukatu yàlla la woon ñu roy ko ci jaamu yàlla googee rawatina jigéen ñi moom xamoon na ne jaamu yàlla ni mu waree góor noonu la waree jigéen ni mu waree góor noonu la waree jigéen mu doon ko def nam ko war a defee ba ñu di ci joxe misaal ci ak mën a yàlla yàllaam tuddee ko jaaratullah jaaratullah ku ne xam ne ne kon jege yàlla ak dëkkaaleeg yàlla ak sopp yàlla moo ko may tur woowu kon jigéen ju ne xam ne jaamu yàlla ni mu waree góor noonu la waree jigéen waaye ku mënoon topp ki ko yàlla booleel lañ noonu ñu ko waxee woon ndax loolu sunu borom da koo def muy sart bu rëy ci baaxu jigéen fa saalihaatu qaanitaatun xaafidaatun lil xayb bi ma xafidallah nee jigéen ñu baax ñi dañuy topp seeni borom kër jigéen ñu baax ñi fa saalihaat jigéen ñu baax ñi dañuy topp seeni borom kër di wattu seen bopp di ko wattul seen bopp waaye loolu buñ ko gisee ci addis yonent bi ba muy tudd addis ba di lim yi dugal jigéen ajana ba mu ca julli julli juróom woor weeru koor maanaam def li li dox diggante ak boroomam ba noppi wattu boppam nee na nag wa ataat zawjaha mu topp boroom këram nee na bu ko defee bu defee yooyu digganteem ak yàlla mu lijjanti ko ba la ko ca war mu def ko ligganteem ak boroom këram mu lijjanti ko ba def ko nee na saa bu ko defee daxalatil janna min ay abwaabin shaat daxalat min ay aljanna min ay abwaabin shaat day tabbi àjjana buntu bu ko neex lay tabbi àjjana bunt bu ko neex lay tabbee àjjana kese yi nga xam ne moom la ñuy nettali ci sëriñ bi nam doon rafetalee ak toppam yàlla waaye nam doon rafetalee ak toppam ki ko yàlla booleel ay xissa yoo xam ne sax am na ci yoo xam ne dëgg la am na ci yoo xam ne du dëgg waaye lépp rek boo ko boolee la muy wundu ak la muy firi mooy rek rafetaloon na topp gam topp borom këram ba mu jaral ko lu ne boo demee ci woykat ba ma ngay wax naan mus la julli te jàppul mus la julli te wirdul door a xëy sangam tuubal daal di wër këram buubal sa loolu jigéen du ko def fa nga nekk da nga fa am loo fa bëgg am ak loo fa yéene da nga ko am dox sa dig li dox sa diggante sa borom nga def ko li dox sa diggante ki la yàlla boole nga def ko li la war ci sa kër nga def ko loolu mooy bayit woowu képp kon loolu war jigéen ju ne war naa jël loolu ci exemple bu fa demee xam ne kii tëdd fii kat lii ko fi indi moom indi fi moroomam nii la meloon daa nekkoon kuy jaamu yàlla waaye daa nekkoon kuy topp ki ko yàlla booleel topp ko rafet beneen ba ci des mooy ni ñu waxoon mooy sàmm sa bopp sàmm dafa nekk lu am solo ci jigéen te kon Cheikh Soxna Jaara nekkoon na fii fa iffa boobu nag buñ koy xool ci jamono day mel ne tey lañ ko gën a soxla ndax jigéen ñu bari jàpp nañu jikko jooju nekkatul seen jikko mooy jomb jomb iffa mooy jomb nit day jomb te lu bari ci jamono nag mel nañ melo woo xam ne jombatuñ yu bari yu bari ci yu araam léegi woyafal nañ ko ba def ko ak bàyyi la ñamale ndax loolu buñ ko buñ ko xamee ci suñ dëkk bii nga xam ne mooy dëkku Tuubaa ni ko yàlla sellale ak fi ko yàlla teg waaye nga gis ay jigéen ñu fi nekk yoo xam ne dañuy def defin woo xam ne sax ñay ñay ñay seet loola di ko sàmm dañ leen jàpp benn jigéen ju ne war ngaa ruus loolu nekk ci dëkk bii di tubaa soxna jaara bisam bii jàll ngay dem ca marché ba wala ngay dem ca euh, barab ya sol loo xam ne dañ lay dogale di la jàpp wala ñu di dugal fenn loolu kenn ku nekk war nga ko jomb bu fekkee fàttaliku nga ba nga demee ci soxna jaara lan la la fàttaliku booba jëriñ bi ci des mooy nag nu xam ne soxna jaara jigéen la woon kon lim ñu war a jural mooy soxna yi ndor di ay jigéen ñu jox leen seen ak ni ñu leen ko war a joxe ngir xam ne jigéen ñu bari ñu defoon lu baax ak yi ñu nett yëpp doon gi ñu doon jigéen téewut ñu defoon lu baax bañ di leen nett li ta la leen ko may mooy kañ àndaloon moo leen jàppandalal def lu baax loole ndax jigéen bëgg naa def lu baax waaye kam kam nekkal du ko dimbale ca def lu baax googee ba nga xam ne lam bëgg dana ko mën a am ca nam ko bëgg nam ko du ko yombalal bëgg lu baax googee kon ku yor jigéen war nga ko yombalal ak bëggam lu baax ak defam lu baax war nga ko yombalal noonu nga xam ne noonu la sëriñ bu mag boobu defaloon soxna jaara bam man fa liggéey liggéey bu réy bi nga xam ne moom la fa liggéey waaye war ñoo xam ne soxna jaara yaay la woon ba nu amee sunuy yaay ñu xam ne soxna jaara yaay la woon nu war maal sunuy sunuy wayjur war maal sunu yaay rawatina sunu yaay ndax sunu borom tabaraka wa taala moo nu ko digal digal sunu borom moo ne nu nangeen rafetal ci seeni waajur seen ñaari waajur waaye nag rawatina seen yaay waaw xamalatuhu ummuhu wahnan ala waxan wahn wa fisaaluhu fi amain an ishkur lii wa liwaliday ilal masir ñaari waajur yëpp ngay fonk waaye nag na ca yaay raw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba waa ji dikkee ne ko dénk ma waaw waa ji dikkee ne ko kan moo gën a yay ci man kan nit moo gën a yay ci man mu ne ko sa yaay mu ne ko ak kan mu ne ko sa yaay mu ne ko ak kan mu ne ko sa yaay ba ca ñetteel ba mu ne ko ak kan mu ne ko sa baay ma ne kon day mel ni da jox na yaay ji ñetti daraja door a jox baay ji benn daraja donte na ñëpp nga war a boole nag te samuleen ba ca des mooy sunuy doom yu jigéen soxna jaara doom ju jigéen la woon ci maam astawaalo mu yar ko jàngal ko xamal ko la mu war a xam lépp ba mu mel ni mel ndimbalul yàlla nag ànd ca ndax loolu suñ mën taxaati faral di wax boo defee li la yàlla digal yàlla dalay gàttandu gàttandug yàlla nag moom la ñëpp yi ñaan ndax moom rek moo mën a tax tax mucc kon suñ doom yi jigéen yi buñ demee foofa xam ne kii kat daa jaaroon ci wayjur bu baax mu xamal ko la mu ko war a xamal jaaral ko fa mu ko war a jaarale kon buñ amee ay doom yi jigéen ñu jaaral leen fu fu nuru foofa fexe ba roy kooka jàngal leen yar leen eh, jox leen melo yoo xam ne bu ëllëgee bu ñu demee ci kër seeni war warigar danañ ko xam xamin wu sell seeni warigar danañ ko jëfee jëfin wu sell ngir ña xool ci soxna jaaratullahi tabaraka soxna jaaratullahi moom parce que li ñuy ñu baree bari ci léegi ci li ñuy li ñuy faral di juum mooy bu ñuy misaalal soxna jaara dañuy misaalal am màggat moo xam ne am na téeméeri at wala am na juróom-ñetti fukki at kon ñu jàpp ne kon maga ko war a roy ndax mag la te xamuñu ne fanweeri at ak ñett yooyu mu amoon kon gone yi ñoo ko gën a war roy ndax loolu mu def lépp ñu di ko nettali ci ay kiimaan ak xar baax lépp ñu di ko nettali ku am fanweeri at ak ñett moo ko def kon loolu lañ ca war a jëlee mooy gone yi ñoo war a jël seen responsabilité xam ne doon gone teewu te doon nit kuy wut yàlla te war ko mën a am ndax soxna jaar loolu mu am lépp ci at yooyu la ko am kon ñay mag ak ñay gone ñëpp war nañ jàpp ne seen royukaay la boo xam ne war nañ caa roy ba eh, raw seeni morom bu ñu melut moom it raw i morom kon lii ay njàngat la yoo xam ne ak yu bari lool yoo xam ne waxtu yu mayew ko war nañ koo jàngatee ci xew-xew bu mel nii xam ne xew-xew la boo xam ne bu dikkee dañuy nafar suñu bopp dañuy xool suñu bopp xool suñu njaboot gi nu yàlla dénk rawatina jigéen ña xool ndax jikko yu mel nii ak melo yu mel nii ñi ngi koy jéem a def ci ñoom wala ñi ngi koy jéem a euh, amal ci ñoom suñ xoolee loola te màggal yi ba ñëw xool loola di ko di ca jéem lanu man màggal ga mën naa am mu jariñu lool waaye bu dul loolu day mel ni màggal gi loolu la rek nga dem ñëw te loolu moom moom la suñu borom tabaraka wa taala wax ci alquran nee na nee na ñi ñi ngeen ñi ngeen di ñi ngeen am di leen nettali seen i jaar-jaar li mu leen di jariñ mooy da ngeen ciy jël ay leçon yu ngeen mën a jariñoo ci seen àdduna laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab ibra la ibra ibra mooy loo xam ne da nga cey jëlee ay leçon da nga cey jëlee ay bind yoo xam ne da nga ko mën a jariñoo ci sa diine da nga ko mën a jariñoo ci sa sa àdduna faqsusil qasasa laallahum yatafakkaroon ne del nett li jaar-jaar yi ñi jàlloon ndax ñi koy dégg mën cee xalaate luñ mën a defaree seen àdduna ak seen alaxira kon loolu mooy am njariñ ci fàttaliku ku mën a doon waaye rawatina kii nga xam ne nag rawatina jigéen ñi xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo jàpp nañu ñoo moom mbir mi te ñoo ko moom tam ndax ki ñu koy defal jigéen la comme ñoom kon luñ cey jariñoo ñoom ñoo ko war a gën a jariñoo ñoom waaw ñoo ko war a gën a jariñoo bañ jàpp ne rek def ay daayira baax na def ay e, togg baax na def ay lépp baax na waaye nag lépp bu la fàtteloo ne nag kii ngay e, warmaal ak kii ngay màggal dafa am lu mu defoon ba am lim am nan laay def man ba bu mu amut loolu it ma am loo xam ne danaa ko rawee samay morom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله الذي وفق أهل طاعته لأسباب رضاه واستعمل جوارحهم وبواطنهم فيما يحبه ويرضاه والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه الحافظين ما أمرهم به من العزائم ما بعد فيا عباد الله في بعض الأحاديث أن في الجنة نهرا يسمى رجبا باسم شهركم هذا maauhu axlaa min al-asal wa ashaddu bayaadan min al-laban faman saama yawman min rajabin saqaahu llaahu min zaalika an-nahr fattaqu llaaha ibaada llaah wa aksiruu fi haadha ash-shahri min as-sadaqati was-siyaam وتزودوا فيه من نوافل الخيرات والصلاة بالليل والناس نيام وانتهزوا فرصة العمر فكأنكم بفصيحته قد ضاق وبساطه قد انطوى وطهروا مقاصدكم على الإطلاق واعتكفوا فيه على صيام النهار وقيام الليل وشمروا لذلك عن ساق الجد الذيل فإنها أنفع ما يجده المرء في الآجلة وخصوصا في الأزمنة الفاضلة اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلاة ترضيك وترضى بها عنا آمين الحمد لله الذي عظم فضله وعم منه النوال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وجميع ما له من الأصحاب والآل أما بعد فيا عباد الله قال الله تبارك وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب واتقوا الله عباد الله وازرعوا لأنفسكم ما تحصدون وقدموا من العمل الصالح ما تجدون يوم يندم المقصر على ما يضيع من عمره ويفوت وما تدري نفس ماذا تكذب ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وهاروا أن تمر بكم الأزمنة الفاضلة ولا تعرفون قدرها فإن شهركم هذا أحد الأشهر الحرم التي العمل الصالح فيها عند الله يزكو ويعظم وكما يضاعف فيه جزاء الحسنات كذلك يضاعف فيه جزاء السيئات سيئات وأفضل الرغائب على الإطلاق هو كثرة الصلاة والتسليم على من صلى عليه الملك الخلاق جعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر تذكر وإذا آنس نورا اقتبس منه ما تيسر يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين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 يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا département man الصلاة فانتشروا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 الله أكبر الله assalaamu aleykum